mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziyaare ñëpp ci bis bu tedd bi ñu ngi baalu àq ñëpp te di leen baal di dénk sunu bopp di leen dénk yéen ñëpp ragal yàlla ak sopp yàlla di leen wax ni ragal leen seen boroom te màggal weer wi nuy dëgmal di weeru koor ni nga xam ne la ko yàlla màggale ni ngeen koy màggale nag mooy màng fexe ba màng ko woor ko ni ko santaane ba sa kemtalaay kàttan fexe ba sàmmonteeg woor wi ci woor ko ak taxaw guddi ya ak ñoŋal ko ci lépp loo xam ne yàlla da ko ca araamal bokk na ci yi gën a màgg ci yi nga xam ne daan romb ci julit julit dunduk julit ay xew-xew yoo xam ne xew-xew yu baax la xew-xew yu yiw la te yooyee ba ca gën mooy weeru ko muy ngën ji fàggu teef ci dunduk julit am na ñetti ñoo xam ne ci jamono yonent bi saa dañoo àndoon bokk daanaka nekk benn ñaar ña faatu ci xare àndoon xar ñaar ña xar ñaar faatu kenn ka des moom dundaat fi ab diir ba faatu ci kawam lalam ginnaaw ba nag yonente bi saabaam di wax ne waaye jii nga xam ne moo mujj dee moo gën ñaar yi nga xam ne ci xare la ñu faatu di wax ay di ko tagg di wax ay yéwam nit ñi yéemu ndax ñee ñoom ci xare lañ faat kii moom faatu ci kawam lalam yonente bi nee na xalaatu waa ji dundaatul gannaaw ñaar ñee ab diggante julli fa daal di tudd julli yu bari yoo xam ne am solo la waaye yàlla defal ko tawfeex mu fekk weeru koor woor ko daal di giñ ci yàlla ni yemoowuñ sax moom mag ñaar ñi nga xam ne ñoo jiitu kon dayo bi ne ci weeru koor kenn mën ta xam nu mu toll da ngeen sant yàlla bu leen yàlla defalee tawfeex ba ngeen fekke ko te bari ci seen i topp yàlla lool bari seen i fàgguteef lool na ngeen xam ne jëf ci gën a màgg ci yi nga xam ne yàlla yoonal na ko gannaaw julli juróom mooy weeru koor benn ponk la ciy ponk lislaam war na jullit bu nekk koo xam ne ànd nga ak sam jot nga ak mag ñuy wax monsieur ànd ak sam xel te itam tukki woo defoo fenn woor da lay daal di war ki nga xam ne xale la jotagul ak mag moom woor waru ko waaye bu nga xamee ne mën na ko danañ ko ko digal ngir mu tàmm ko su boobaa moom dana ci tàggatu bu bu ëllëgee mu mën koo def te itam ay waajuram danañ jële yool bu mu ci am ay waajuram lañ koy bindal nit noonu ki nga xam ne daa ci tukki wala mu tawat ñoom ñaar bu fekkee ne tukki bu dagan la te diggante bi ñu wax ne ku ci tukki mën ngaa wàññi julli toll na noona te dagan na su boobaa moom moomi tukki ci weeru koor mën naa dog eh, niki noonu ki nga xam ne daa tawat moom itam mën naa dog ba yàlla may ko jàmm ba yàlla féexal ko jàmm ki nga xam ne nag daa àndut ak xelam ngir rab xëy na wala mag moo tax àndut ak xelam wala màggat ñooñu woor waru leen mag mi nga xam ne nag màggat na lool mi ngay ko xelam waaye mënula woor yaram bi àttanu ko ndax ñàkk kattan su boobaa mag mooma du woor waaye day leele bis bu mu doog bu nekk mu jox miskin lu ko mat ndogu nit ki noonu ki nga xam ne daa tawat bu dee yaakaari wér moom day dog rek bu koor gi jeexee mu fay bu dee tawat joo xam tawat yi ndëkkaale du wér su boobaa day dog waaye day leele moom tam ay waaye yéen bokk jullit yi ngeen xam ne bokk na ci yi nga xam ne day tax sa koor du wér mooy ki nga xam ne daa gis baax tey jigéen jamono yi muy gis baax du woor waru ko sax nit ki noonu ki nga xam ni dafay jigéen te am am doom dafa wasin ñoom ñaar dañuy dog waaye danañ fay koor gi moom waru leen benn yoon waaye danañ fay nag ki nga xam ne day nàmpal ak ki nga xam ne daa ëmb ñoom itam bu fekkee ni kii nàmpal yaakaar na lor ca doomam mën naa dog waaye dana fay te itam dana joxe fidiya ki nga xam ne daa ëmb nag moom day fay rek yooyu waaye yéen mbokki jullit yi eh, am na yoo xam ne dañuy yàq koor yu bokkute yii ñu mën a teg loxo man leen a gis nga xam ne mbiri biir la yooyu bokk na ci jëpp wax joo xam jëpp wax ju araam joo xam naka jëkk dafa araamoon wax la woon wala jëf bu weer koor ñëwee day tax mu gën a feddali ko moom wax jooju araamoon wala jëf jooju te du nekk sax lu ñu mën a gis waaye lu ñuy yëg la wala lu ñuy xam la lu mel ni jëw kenn mënu koo gis waaye day yàq koor nit niki noonu dox di saagante ak a ŋàññante niki noonu sos niki noonu xool loo xam ne mën na laa andil fitna lu mel ni ay filmaaki mm, yu na wala ay foto yoo xam ne mën naa ni fitna ci yow niki noonu diglu lépp loo xam ne ni dañu laa araamal nga dil ko ci yow lu mel ni ay way wala musique wala mu tëgg ak yu mel noonu ak lépp loo xam ne xeeti ma yàlla yooyu yëpp bokk na ndax yooyu day jeexital ci sa koor te itam day waral ay bakaar moom yooyu noonu mbokk koor du rek bàyyi lekk ak naan kese ak mar ak kiif waaye koor mooy bàyyi lépp loo xam ni bokk na ca bay lépp loo xam ne yàlla araamal na ko ci ay wax ci ay jëf lépp loo xam ne lu ñu araamal na tamit indi bàkkaar ci nit ki biir bi daa war a woor ci ñam bi ak ci ndox mi pëy mi war a woor ci lépp loo xam ne xeetu bànneex la sa bët yi woor ci lépp loo xam ne dañoo araamal ci moom moom xool ko sa làmmiñ yi daa war a woor ci lépp loo xam ne dañoo araamal ci moom pour mu tudd ko dafa bon dégg rek du mën a doy waaye da nga boole bàyyi yi ñu wax yëpp boo ko deful koor ga coono rek lay doon yoo xam ne du ànd ak benn kon mbokk yi da ngeen ragal yàlla te saamu seen koor te ngoy ji téer yàlla bu ta bi ta ngoy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di baal waxtu di leen baal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laxirati xasanatan wa qina adab annar rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab